comme nuñ ko waxee ba tey 100 pour cent gën bi laa taxawal ñi nga xam ne ay mbokk Liss Ndiago la ñi ay mbër moom tey ñu am daan boo xam ne CNG teg na ko Liss Ndiago kii euh, Baba Jaxal tey champion bi yëpp ñëw fekk ci ko fii ku ci mel ni ambassadeur de non violence mu ngi fii tey di ngeen xam kan mooy ambassadeur de no violence Liss Ndiago la moom la ko CNG fal tey ay supporteru Baba Jaxal am nañ defoon fii keroog ba Baba Jaxal di bëreeg bépp bis mi yàq stade bi yëpp rajaxeetu ko tey ñu ñëwaat tourné waat ñëwaat fii si naaj bu tàng bi di defaraat sees te kenn waxu leen ko ku dul Baba Diakhal moo leen woowaat ñëwaat initiative bi Baba Diakhal moo ko jëlal boppam muy lu rafet mais weetu si ndax boo xoolee tey sama ginnaaw ñii ci nekk yile mi ngi sama ginnaaw booy fay ay Zos Laurent Ndiago Luis Ndiago Gorofil champion yi bëri nañ fi booy Sila ñoom ñëpp a ci kaw caat fora ku lim juum wala doomu matalan ah. jaamagan bi yëpp léegi nag loolu nag dañ ciy jox Baba Diakhal mu xool initiative boobu ak niñ ko waajee noo taxawee nii woo say supporter ñu ñëw defaraat saisi waaw ginnaaw bu ñu sante yàlla jëlu si yeneen bi di sant suñuy ñaari waajur waaw di nuyu waa axlu làmb di ñaan sama yaay nag yàlla na fekkee sama njëriñ di nuyu waa axlu làmb nag di leen wax ni ñun lii nii stade bi ñoo ko moom stade bi stade mbëri la te duñ bëgg ku ñu ko yàqal te tamit supporters yi duñ leen mere de supporters yi ñoo tax ñu xam Baba Jaxal supporters yi ñoo tax ñu xam Liss Ndiago supporters yee tax promoteurs yi duñu wër kon lii ñu def du leen si mere dara si yàq bi ñoom ñoo yàq ñoo toogaat waxtaan ak seen biir ne dañuy ñëw defar kon xam nga ñoom bëgg nañ seen mbër kon amaan tam lii nii def ñuy yee rek yee supporters yi ak mbër yi ñoo xam ne ñu ñëpp benn lañ te stade bi ñu ñoo ko moom waaw di wàllum waa CNG nag ñooñu suñuy papa lañ CNG suñuy papa kese kese ñoo fa nekk dañoo ay doom ko ñun kon ñoom ñoom tamit ñu benn décision maanaam aj mbër di ko yàqal jëluñu décision boobu mais dañuy jël décision maanaam yar mbër bi ak supporters yi mais di nuyu nag waa CNG ñëpp ñëpp ñëpp di leen wax ne affaire bi ñun daal ay ndaw lañ ñu ngi tuub di jégalu di encouragé nag samay nit ak ñëpp lii day wane nañ ñëpp benn lañ ku mel ne yile ay góorafil jaamu gën bi yëpp taxawoo ñu te ñun amuñu dara lu dul làmb xoolal amul benn promoteur buy tëgg làmb te amul doomu jaamu gën bu siy bëre amul amul benn promoteur buy tëgg làmb te doomu jaamu du si bëre kon xam nga ne làmb dafa bokk si jaamu gën te jaamu gën day doxal làmb caaray samsam bi yëpp dañuy doxal làmb del xool ay Dakar ay feneen ak feneen dañuy roy si waa Diamaguène waa Diamaguène ñooy sol lu rafet ay tiset yi seer di sol tiset yi seer yu rafet di luwee ay oto kon ay Dakar feneen ak feneen Fass ñoo ñëpp dañuy roy bu ñu amee combat sax dañuy ñëw Diamaguène defar si ay tiset kon ñoom it ñoo ñëw ñu ne ñaari waa Diamaguène ñoo yàq saisi waaw maanaam dañoo bëgg a maanaam wàccee Diamaguène rek wala bëgg a tuutal Diamaguène kon xamuñu Diamaguène xamuñu dara dul fair play ak non violence xoolal bu fekkoon jaamu ngeen ay nitu ay lañ ñoo fa nekk wala ni ñi ñëpp duñ teew de te booy duñ defar lii de kon bàyyi nañu jàmmal may waa jaamu ngeen jàmm surtout ma waa taawon beeg yooyu noonu te ñoom lépp lu ñu soxla lu ne fi la nekk jaamu ngeen bi te jaamu ngeen bi déggoo lu mu tudd jaamu moo gën te jaamu ngi fépp waaw di wax nag kontaan nañ trop si gars yi lu ñuy defar ak yëpp. ñii tamit seen teewaay beg nañ trop amuñu seen fay waaw loolu da am naa li nga xam ne war naa ko see tey mu am boo xam ne defe naa bu ma juumal yéen ñëp daanaka yéen bokk supporter mhm. li topp Baba Jaxal mooy topp yi la li topp yi la mooy topp Luis Ndiago mhm. li topp Luis Ndiago mooy topp Laurent mooy topp Gorofil mooy topp Zos mooy topp Boy Faye mooy topp mbëru jàmm gën sam bi yëpp tey est jotul bi ngeen waree bëre mhm. ngeen toog seen supporter comme niñ gis Baba Jaxal fi gis la fii ngeen toog ak ñoom ñëpp yéen yéen leader tamit ngeen ñëw taxawaay boobu mm-hmm. wax ak seen i supporters ba bu ngeen ñëwee ci stade bi mm-hmm. duñ leen xoolee benn bët boo xam ne da ngeen di yàq wala ngeen di def leneen leneen rek yéen a maanaam bennoo bii nii démb woon ko ñoom liis mm-hmm. maa ngi yëlee démb ñu ñëpp ñoo ànd nekk kon affaire bañ ko jàppee ba léegi ñoom tooguñu dañuy dugg si groupe whatsapp bi di waxtaan lii nag bu yeewul supporters yi ñoom la de ndax ñoo ngi ne ñëpp benn lañ ñoo bokk ndey bokk baay di ànd dem fépp kon lii na yee supporters yi supporters yi tam Laurent buy bëre maanaam supporter Babou Diakhal dañuy ñëw Babou Diakhal buy bëre supporter Laurent ak Liss Ndiago yile ñëpp dañuy ñëw Gorofil seen supporter dañuy ñëw ku si xewle open press ñun ñëpp mbëri dañuy ñëw suñu supporter dañuy ñëw maanaam supporter lu leen di waxaat ñun bëri 100 pour cent jaamu gën 100 pour cent caare sam-sam ñun ñëpp benn lañ supporter yi bëgg naa foo leen munti daje xalal na doon benn ngeen àndandoo doon benn say xàccandoo dóorandoo jaamu gën baay bu ñu àndee doon benn say baay amul benn dëkk bu ñuy kii ndax fii ay jàmbaar kese fi ne alxuraan di wax supporter yi baay roy leen si ñun ñun bëri lii ne ñuy def roy leen ko waxee ba tey 100 pour baa ngi fii dañuy jox yile mu am kàddu yoo xam da ko ci sànni. yile nuyu na waaw fay nañ la di nuy ñu fi teew ñëpp di encourager sa tamit mm, Baba Diakhal di wax initiative bi mu woote affaire bu rafet la quoi. mais di wax ne tamit xam comme lu baaba jaxal wax rek. ñun instant bi nii moom wax na wax ji yëpp. li si des mooy xam naa après ñun dinañ toog dinañ réunion dinañ waxtaan suñu biir. waaw bëgg nañ daal bu ñuy ñëwaat jàmm beneen jàmm gën mooy ñëwaat si làmb ji quoi bu uteeg bi nga xamante ne nii moom moom moo fi nekkoon quoi bu fi nekkoon amaana sax. deful dara sax mais comme gars yi ñu ñu fu ñu placé nii. Mhm. bëgg nañ waxtaan suñu bi ba bu nuy ñëwaat. Mhm. indi leneen li nga xamante ne nii tey foogee wuñ ko woon si ñun. Mhm. si acte bu rafet quoi waaw ak si lépp nag tamit quoi. Eh, ñu baa ñu xel waa làmb bu baax a baax. te xam na tey làmb tey ku fi amul promoteur bu fi tëgg làmb joo xamante ni nii boole woo si mbaru jaamu gën. ndax tey jii mbaru jaamu gën làmb ju mu duggul boo xoolee si làmb yi làmb yi du neex te boo xoolee ñu si bëri du ma ne yi gars yi bëri. joxuñ ñu cër waa si làmb ji mm-hmm. léegi nag comme joxuñ ñu ñun ñoo war a liggéey loo xamante ne ñoom dinañu jox cër uh-huh. waaw si loolu lañ nekk nii te incha allah yàggatul dara daal waa incha allah ok noonu la demee ba tey maa ngi taxaw ak Laurent Laurent tey noo gisee li Baba Jaxal wax ak teewaay bi seen teewaay waaye naas ginnaaw ma sant yàlla yee julli si Mariam bu seelam yee di sant samay ñaari waajur yee waa naas li geste bu naas la barki yàlla booy yàq nañ sees mais tey ñu ko yee ndax keroog nu làmb ji demee la woon yee waaj sa combat ay at comprendre nga yee lu ndaw ñëw yàq xam rek après affaire da boo booy doo yàq sees ay xale te tamit fii amul ku dul juum daraja boo mënta am ne xam nga tamit bul fàtte ni nit nga da ngay juum yee te tamit dañoo juum rek yee di jéggalu ñëpp comprendre tamit waaw lii njëkkee wuñ ko te duñ ko fi de ñoom Balla Gaye dañuy bëri ak Modou Lo. waaw ah. ak kan Gris Bordeaux. yéen rek ko ko fi def de. ñoom laa dañuy ah, bëri. Ah, nañ bàyyi ba la sept août barki yàlla bëree nañ yàq si te VIP dañ leen war ak ay cinq ans ñoom am nañ ay millions ñun yoruñu dërëm sooñ agee da ñuy sonal. barki yàlla ay Balla ay Modou Lo lañ war ak aj ñu génnee leen làmb ji ndax làmb ñun ñoo koy yor barki yàlla tamit waa di woom comme mbër yu mag yi jàmm gën et lii nii ñoom ñooñu si waroon jiitu ñun ñu topp leen si comprendre nga. et ñoom bu ñu xaar sax ñu leen di woo. Mm. et te am na loo xamante ni ñoom waa ñun sax ñoo waroon toog ñoom ñu ñuy xëcc ñuy ñëw. Mm. mais ñoom suñ toogee ñun ñun tamit ñun mun nañ téye suñ bopp téye suñ bopp boo xamante ne duñ dem di leen ne ñëw leen. Mm. ndax ñoom lu leen war la. mais est na leen est-ce que Baba woo na mbër mag yi. ñoom ñooñu njëkk jàmm gën ñooñu fa njëkk a dëkk sax comprendre ga ah. ñoom waaw moo lool su si kenn ñëwoon sax teewaayam da waa ñëpp mënuñu ñëw mais nag kenn teew rek yéen teewal leen fa xam nga ñun ñii fii ñun ñëpp ñun am na yenn booy ñëwul ah, mais ñun ñi ay morom na ñun ñoo leen teewal mais ñoom gisuñu si kenn dañoo waroon teew comprendre ndax ñun suñ demee fene yow tey jii benn dëkk ngay dem benn boobu ndaw di bëre xool Zarko ku nga doo bëreel booy bu ndaw la Zarko dafaa indi estat te ñun Zarko daf ñoo gën a doon mbër bu mag hmm. yee te day gungaay booy ñun mun nañ gungeente suñ biir te suñ ñëwee instant ñëpp ñuy gis dañuy xam mais ñoom mbër yu mag yi nañuy teew di leen jégalu nag dépassé wu ma si kenn waaw. surtout loolu ambassadeur de non violence mooy Liss njaago nga xam ne moom lañ ko fal CNG da ko néewal ni dugg nga xam ni CNG da ko fal. moom it moom it bañ nga ajewoon da doon tëdd di génn naan CNG ah, <laughs> sama xaalis nee na ànd ta kuy yàq léegi Liss ñoo gisee loolu en tant que ambassadeur ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp waaw di nuyu diaspora bi yëpp di nuyu képp ku fi teew waaw di leen wax lii naan ak subu rafet la ko waa parce que ñun ay xale lañ toujours moox leen ko ñun làmb lañ am waaw te pour man nit ki doo ko bëgg am la wax doo di ko lu koy yàqal nga siy dox avant tamit lii nii maanaam leçon la rek boo xam ne man suwaay def ñuy gën a ñëpp bu ëllëgee quoi bu ñu ñëwee si làmb ji waaw pour ñu may bañ a may maanaam waxkat yi lu ñu wax quoi parce que bu ñu defee rek am na ñoo xam ne dañuy toog di xaar waa jàmm gan def nañ ñu mënoo toog dem waa jàmm gan ñoo fi def lii wala ñoo fi lee en tam loolu ñun ñoo koy bañal suñu bopp yaa ngi dégg bu ñëwetee si làmb nañ ñëw si xamul wax si njëkk ak xamul wax ak yer xamul wax waaw maam ñun bu dee victoire rek bu jëree suñu bakkan sax na mën nañ ko lijjantil quoi barki alxuraanu karim waaw pour ëllëg quoi ay waxkat bañ see xam wax bañ see am yoon parce que ñun làmb lañu am làmb maanaam du benn jour du ñaari bis waaw làmb carrière la quoi te carrière bi tam des lu bëri ay xale lañ waaw te pour man toujours rek daa war di rafet quoi waaw. comme noonu Gora File noo gisee loolu initiative bi nga xam ne supporter def nañ ko ñëwaat defaraat saisi. waaw laat loolu bu rafet la idée bu naaj la mais di wax CNG gi nga mër gi nga laat maa ngi wax leen CNG gi nga bëri jàmm gën ñoo yor xorom làmb ñoo yor xorom làmb ji. barke si ñu Fallou Mbacke boo leen naree aj lamb ji du mus a neex yu booy bu fi bëre nga nar ko aj wala narotee léppam lamb ji fii fii ba suba du neex te li ma la wax rek jàmm gën ak sam-sam caaroy lépp lu ñu bokk si lamb ji bu ci bokkul dara du saf dara du neex kon ngir yàlla nañ jàppale mbëru jàmm gën mbëru bu ndaw nga koy ay nga koy ay ay ay at dafa métti ni ko am ne ay papam dañ koy yaakaar ay dañ koy yaakaar ay supportam yaakaar nga koy ay at ay ñaaree dafa métti nga téye reliquat dafa métti nañ jàppale mbëru jàmm gën si Kàmbaaw dañuy xam ne billaahi lamb ji buñ ci bokkul booy bu da ngay seetlu da ngay dëkk feneen booy dañuy am rêve di bëreeg ñoom mbëri jaamu gën mbëri sam-sam yi kon ngi jàppale booy nañ jàppale booy booy bu fi def jumte rek ñu ne lañ lay aj doo jaaruwul barke sëñ Fallou mais rafetlu na ngeen wax ak seen supporter non ñun supporter sax yow yow xam nga dara si fan yi laa jógee si combat loolu laa dox sama communication loolu la woon booy buñ ñëwee lamb xam nga nañ ñëw mbër mi ndax buñ koy yàqale parce que lu bëri lañ koy yàqal xam nga si da ngay da ngay da ngay bëree nga war a jël sa reliquat doo fekk dara ñu ne sa booy yàq fi wala ñi mais ñun ñoom war dëgg yàlla ñun buñ tekkee bu ñu amee bu ñu siwee booy ya tax ndax ñun ñooy dem jënd ay cent francs deux cent trois mille quatre mille dem jagg tigi dagg tigi ñëw siboota ñu kon ñun aduna ñëpp bu ñu xalab leen man ak ñoom ñoo far mais dañ leen conseil bu ñëwtee si làmb ngir yàlla bu ñu bu ñu daane ak bu ñu daane yëpp bu ñu daanoo yëpp dañu ànd discipliné ñu si fobeere fu ñu nekkoon sànq dem